alhamdulillahi wa kafa wa salaatan wa salaaman ala cibaadihi alladina stafa laa siyama nabiyuna almustafa wa ala alihi wa asxaabihi zawi tamkiini wa safa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 maa ngi leen di booleeti juróomi baat yi ñu yàlla boole mu gën a tedd gën a sell gën a sakkan doy walis bépp nuyoo te benn nuyoo mënta doy walis ko ñu tibbee ko ci suñu xol jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu fas yéene ànd ak yéen ci seen xadiisu sabaax sof ak yéen lañ ci sosoon ak yéen ci téeréeb yàlla bu màgg bu tedd bile di alquraanul karim képp ko ne jullit laa war a hittewoo ba mokkal ca ndéem lottu nga ci mokkal ko amul benn jullit bu am droit ci ñàkk a jàng alquran ama mokkal ga nag jagleel ak yàlla la waaye nag ñàkk am mokkal dara moom ak yaafus mënu koo paase téere bu màgg bi yàlla binduñu ko leetar ñun jullit ñi war nañoo fexe yittewoo ba xam la ca leetar ba ndax kenn ku ne ci ñun sa boromam nit bu la bindee leetar bala ngaa tëdd rek danga jéem a xam la nekk ca leetar ba benn nga nga jàng ko xam ko soo ko mënut nga jéem koo jàngulu pour ñu xamal la ko ñaata lañ fi bind ay leetaru france te dégguñu tubaab ñaata lañ fi bind ay leetaru anglais te dégguñu ko ñaata lañ fi bind ay leetaru espagnol te dégguñu ko ñii ñi leen bind leetaru olof te mënuñ koo liir ñii ñi leen di bind leetaru arabiya te mënuñ koo mënuñ koo liir waaye yooyu yëpp danañ ci def fi liirlu ko waaye waaye kon nag buur bu doy ni yàlla bu jëlee benn leetar adressé ko mboolem jullit ñi jullit ñooña war nañoo yittewoo ba xam li leetar bi làmboo te leetar bi kat la mu làmboo bokk na ca ay ndigle bokk na ca ay tere bokk na ca ay xuppe bokk na ca ay dëhële bokk na ca ay waare bokk na ca ay xissa ak yu mel ni moom bokk na ca ay ñaan yooyu yëpp waxoon naa la ko lettre bi ëmboon ko ba ma lay firil faatihatul kitaab ak lim ëmb waxoon la ne la li alquran ëmb lépp faatihatul kitaab ëmb na ko ndax alquran am na sant yàlla fatiha yaa ko hubbee woon ci sant yàlla ci alhamdulillahi rabbil alamin waaye tamit ah, am na wéetal yàlla ba nga ne rabbil alamin fatiha am na wéetal yàlla ndax saxalal nga yàlla ak rububiya ci mbooleem awalim yi waaye fatiha bàkk yàlla da nga ne arrahmaani rahim ci fatiha rek bàkk nga yàlla waaye tamit alquran amoon na jox yàlla gëddëm waaye ba nga ne maliki yow diini rek kooko jox nga yàlla gëddëm ci lim moom lépp waaye tamit fatiha am na jaamu yàlla teg ko ci kaadaru sharia da nga ne iyyaka naabudu dugal nga loola lépp fatiha am alquran am na jaamu yàlla teg ko ci kaadaru tariqa teg ko ci kaadaru xaqiqa da nga ne ah wa iyyaka nastainu rek dugal nga yoon booba yëpp waaye alquran am na ñaan fatihatul kitab am na ñaan da nga ne ihdina sirata almustaqim dugal nga xeeti ñaan yëpp waaye alquran am na qissa da nga ne gayril maxdubi alayhim wala maanaam ihdina siraatal lazina anamta alayhim xëy sa ñëw na waaye ba nga ne gayril maxdubi alayhim wala daalina kooka nag tëkku ñëw na kon léppi alquran mi ngi ci fatiha leetarab yàlla boobu mu binduñu tamit yi ma tuddal la moom la leetar bi ëmb jullit bu nekk war a hittewoo ba xam la ca leetar ba leetar boobu nag da koo adressé ñëpp ku ko gëm di ku weex mbaa ngay ko ñuul nga dëkkee Afrique wala nga dëkkee Asie mbaa nga dëkkee Amérique chimal wala Janoob wala Europe dugg nga ci leeta yàlla bile ñépp a ko bokk moo tax kon ab jullit warul xatal jullit piir dafa war a gëm ne rek sama moromam jullit mooy sama mbokk donte bokkuñu meen doonte bokkuñu gaño doonte bokkuñu réew doonte bokkuñu waasoo donte bokkuñu raasoo ak lislaam comme moo leen takkee rek moo gën a dëgër ci mbooleem xeete takke yi ndax innamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum moo taxoon saayir ba wax ne walastu walastu urdi siwal islaami watana assaamu fiihi wa waadi niili siyaali wa aynama zukira smullahi fi watanin addadtu arjaahu min lubbi awtaani yaa axi fi lhindi aw fi lmagribi ana minka wa anta minni anta bi laa tasal an unsuri aw nasabi innahu l islaamu ummi wa abi saaxiba ne abil islaamu laa abali siwaahu ida ftaxaru bi qaysin aw tamimi saaxir ba nee na man duma gërëm lu dul lislaam muy sama dëkk fépp foo xam ne daal boo fa wàccee dégg allahu akbar xay xala salaati man foofa daal def naa ko muy sama dëkk donte juddoowuma fa saam waa waadi niil ñoo xem képp ci man man lislaam xamul frontière kon képp ku ci adhéré wu jàppee naa la ngay sama mbokk mu xamul frontière sama diggante yow fuñ mën a tuddee turu yàlla rek foofa sama dëkk la ak ku ko mën a tëddu buñ bokkul raasoo ki sama yoon nekku ci li ñu boole moo gën a xam doole mu ne man daal lim naa wàll yépp ci àdduna bi ñu fay tuddee baatab laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullahi def naa ko sallallahu alayhi wa sallam foofa muy si gën a sell ci samay dëkk yow sama mbokk ma nekk Hind mbaa nga nekk ci Afrique maa ngi lay xamal ne man ci yow laa bokk yow mii ci man nga bokk bul ma laaj sama askan bul ma laaj sama cosaan man daal lislaam mooy sama yaay lislaam mooy sama baay sama bàyyi lislaam xaw ma jenn baay ju moom bu fa nit ña nekkee di puukareewu naan ci bani xaysi laa bokk ak tamim sama yoon nekku ca man daal mbokkoo naa képp ku bokkoo téeréb yàlla bi mbokkoo naa képp ku bokkoo diine yàlla ji mbokkoo naa képp ku mbokkoo yonentoob yàlla bi mbokkoo naa képp ku ko xam ne jël na borom bu màgg bu tedd bii def ko muy boromam du ma nangu mukk mbokkoo googa tariqa di ko yàq maamu jàpp ci tariqa man jàpp ma ca wala maa ngi jàpp ci tariqa moom jàpp ci tariqa bokkatuñ dara du ma ko nangu fii rek saytaane la gu muy jaaree di yàq ci ñu ko xamul waaye tamit du ma nangu mukk pas-pas yu wuute kii ne maa ngi ci xaqidatu imaam al ashari yi kii ne maa ngi ci xaqidatul mutasawifina yi ah du ko yàq wala kii ne moom mi ngi jàpp xaqidaab wahabiyina yi yooyu yëpp sama yoon nekku ci comme daal yaa ngi tudd laa ilaha illallah man daal def naa la ngay sama mbokk di jàng téereb yàlla bi kooka mooy ki dégg diine koo defee kon nag bañ jël diine jiital ko ci tariqa yi jël yonantu bi jiital ko ci kilifa yi jël yoonu jël yàlla jox ko gëddëb ci wéetal ko moom mi wéet ci lépp waaye tamit bañ a dimbale seytaane ci ay fiiram yi muy jaaree bi ñu féewale kenn ku ci nekk gis sa morom muy sab noon su ko defee ngay gën di néew doole rekk te loola lépp la seytaane bëggoon moo tax daal maa ngi wax ne ñun ñëpp rek dañ bokk xam ne war dugg ci xooteem yàlla bile ma dëxaloon la ko démb ñun ñu xeebu ñu doxo di ñile ay fan boo toogee sanguwuloo sa poqataan bi xasaw lépp loo xamee ne nii mi ngi ci sa yaram wi xasaw boo tuuru parfum xet gi génn ci yow kenn du ko mën a noyyi soo xëyee bisab lëmm borosuwuloo soccuwuloo koo waxat bu dëppul bakkanam yaa ngi koy bëgg a ay battaxa nekk ci say bakkan ay taflit yu xasaw di génn ci say gémmañ ay dem wanag di génn ci sa suuf ay tuuram ndox moo xam ne kenn xamut la muy niru ku mu taq mu dem raxasu ji ko di génn ci sa kanam nga boole kook xenu sobe soo xam ne nii moo xëpp ay saako di dox ak moom li nekk ndox li nekk dem wanag nga solu ba jekk rafet fekk na li nekk ci sa biir buñ ko génnee woon tey ñëpp daf seen bakkan yi yow mu xeebu mu mel nii la suñ borom bi di xoox kon xoote baxee ko na ca ku màgg ku tedd ku sell ku amul dendanoor amul nawle jëm ci ku doxadi ku xeebu lu tax dafa bëgg ku xeebu ku doxadi kooka bu ko wuujee rek mujj màgg mujj tedd mu xam idaafatu tasrif moo taxoon suufi yëba ne man de doy na ma tedd nga ba ma yàlla xooxee boole ma ci ay jaamam wallahi su ma mënoon a naaw danaa naaw ngir ak kontaan su fekkoon ne tëb yi danaa mën a ja laal suraya bi muy déllëñ bi danaa ko def moo tax ma ne wa mimma zaadanii sharafan wa tiihan wa kittu bi axmasay ata sara ata suraya ata suraya duxuli taxta qawlika ya ibaadi wa an xayarta ahmada li nabiya wallahi dolli na ma tedd nga ak a kontante xaw naa naaw pour bëgg a laal di lañu asamaan ya tàbbi gi ma tàbbi ci roon waxi yàlla jëm ne yaa ibaadi idaafatu tashrif googu daal ak tànn gi ma tànnal ahmad di sayduna muhammad muy sama yonantu ñaari teraanga yi doy na ma sëkk ba su ma amoon ne laaf dinaa naaw ngir ak kontaan su ko defee kon nag loolu dafa jarabaxi xel loolu tedd nga ju mag la yàlla nag moo ñu bëgg a teral moo tax mu ñu di ñuy woo ma junjoon la ko démb ne suñ borom ak mbaaxam gu tedd gile bind na juróom ñett fukki invitation ak juróom ñeent muy quatre-vingt-huit quatre-vingt-neuf invitation invité ci képp koo xamee ne nii wax nga ne gëm naa yàlla ci sa làmmiñ sa xol bi fas ko say cër di ko pratiquer ku mel noonu la yàlla di xoox yàlla éviter lu mat juróom ñett fukki yoon ak juróom ñeent yow mi may déglu yooya nag am na ci yoo xam ne mi ngi ci suratu baqara moo ca jiitu sax suratu baqara mii nga xam ne buñ la ko laajee neel mooy saar wi njëkk a wàcc madinatul munawara suratul baqara mooy saar wi gën a gudd ci alquran suratul baqara mooy saar wi ëmb aaya bi gën a gudd ci alquran muy aayatu dayni ci yaay wal islaamu isa daayantum bi daynin suratul baqara moo ëmb aaya bi gën a tedd ci alquran muy aayatul kursiyu suratul baqara moomu xam na ñetti tur turam lu gën a siiw mooy suratul baqara danañ koy tuddee suratul kursi yi ngir la ci aayatu kursi yu nekk danañ koy tuddee sanaamul quraan mooy jagañab alquran yonentoo ne loo gis xam na jagañ jegeñu alquran daal mooy suratu baqara nee na al albaqaratu sanaamul quran wa zarwatuhu wa zarwatuhu mooy njóllasteen ba gën a gudd nasala maa kulli ayatin minha samanuuna malakan saa wile daal aaya bu ci nekk ba ko yàlla di wàccee da koo boole juróom ñetti fukki malaaka ñoo escorté aaya ju ne ci saar wi ba mu wàcc mu génne lu laa ilaha illa laa ilaha illa kursiyu ca aras jokkale ko ci saar wi mu ne yaasin mooy xolab alquran kenn du ko jàng jublu ci jëmmi yàlla ja lu dul ba yàlla jéggal na la say bàkkaar yëpp waaye tamit eh, suratul suratul baqara danañ koy tuddee sax suratu zahra yonentoo waxoon ne iqra'u zahrawayni waaye waaye jàng leen ñaar leer yi ñu ne ko ban ak ban mu ne mooy baqara ak ala imran ndax dañoo leer ngir ak màgg ak seen seen ak payoor ak gindee gi ñuy gindee képp ku leen jàng ak di leen pratiquer di la teg ci yoon wu jub wi du yoonu siraatal mustaqim kon suratul baqara moo jagoo ñeenti tur yi le ci la wooteeb yàlla bu njëkk bi la nekk moom laa lay bëgg a wax saar wi nag boo ko jëlee ah, nga lim aaya ya ca ne yëpp dana mat ñaar téeméeri aaya ak juróom-ñetti fukk ak juróom-benn ci ay aaya la saar wi ëmb baatam yi ci nekk yëpp soo ko calculer juróom-benn junney baat la yu teg ñaar fukk maanaam eh, juróom-benn junne baat ak téeméer ak ñaar fukk ak benn mooy six mille cent vingt et moom la saar bi ëmb suratul baqara gii nag la yàlla njëkk xooxee ay jaamam invité leen képp ku koo xam ne am nga imaan rek bokk nga ci invitation bi te xam nga kuñ ne la woon préfet moo la invité tey ndogu nga kontaan buñ ne la woon gouverneur moo lay woolu nga bëgg suñ la waxoon commissaire bi de moo lay woolu nga kontaan waaye waaye buñ la waxoon premier ministre wala ministre bu mën a doon wala ab député yaa ngay kontaan rawatina buñ la ne woon yow de président moo la woolu nga kontaan kon nag président wu président yi nag bu la wooyee invité la nga war a bég muy yàlla li nga xam ne mooy rabbul izzati wal jabarut yàlla nag mooy wax ci suratul baqara ne yaa ayuha alladina amanu laa taqulu raina wa qulu unzurna wasmau wa lil kaafirina azabun alim yàlla mooy wax ak saxabaay yonantu bi di leen jàngal teggihin di leen jàngal jëflante di leen jàngal waxin di leen moytandikuloo yépp baat bu am ak jamtalu rek sori leen ko lu ko waraloon yonent bi saxaaba yi dañ daan ñëw ne ko waaye waay yow yonent bi muñal ñu tuuti bu yàlla wàccee ci yow alquran te yow buy wàcc nga koy kapte mokkal ko te loo mokkal dootoo ko fàtteeti yàlla la bàkkee sa nu xuriw ko falaatam ñun nag gaawu mokkal te gaawa fàtte ñi lay ñaan li nga ñuy jàngal boo ñu koy jàngal na nga ñuy muñal ñu koy wax ak a waxaat di koy wax ak a waxaat ba mokkal ko nga door ñoo bàyyeeg suñu bopp waaye boo waxee benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ñu bëri ci ñun duñ xam loolu waral ñu ne yaa ayyuhal lazina amanu laa taqulu raaina boo dañu ne ko yow yonantu bi daal raaina muñal ñu ba li ñuy sas ñi man koo mokkal ndeke raaxi baat bi am na ci làngu yaaram tukkee ko ci riaayatu ji firi ak sàmm ak ak wattu waaye baat bi tamit dafa am ci làngu yahut mu bàyyi ko ci raxunatu ji firi yambar bii firi dof bii firi ku yembul bi yàlla nag waxee yonantu bi saxabaam yi ne yéen a ngi ñëw fekk yonent bi toog ko raay naa waaye waaye muñal ñu ba li nga ñuy jàngal mokk nga door ñoo bàyyeeg suñu bopp yowoot yi nga xam ne nag fu ñu fekk ñu ngi ut porox ndoll fu ñu mën a jaaree ba yàq fu ñu mën a jaaree ba wax wax ju bon fu ñu mën a jaaree ba jëf jëf ju bon ñu ne eh, am nañ occasion baat bi la muy teg ca ñoom di aw tagg ak li muy tekki ci ñun di aw kaste duñ benn nañ profitoo bàyyi leen ñuy wax baat booba ñun ñi profitoo ki tamit jël baat bi ci suñu làng di ko waxandooram ñoom ñoom ñu nammu ca bàyyi ñu xel muñal ñu ñun ñu nammu ci suñu yambar mi su boobaa ñële dañ say nammu tabaarakallaahu ah feexlu amar lañ cay namm ñoom sàmmuñu wattuñu bàyyiñu xel yahood ya namm ci lismu mooy suñ yambar mi raay naa suñu yambar mi suñ dof bi nga xam ne kon fexel la fële min min riaaya waaye fii lisim la ca min na léegi nag yàllaa gën a ñor ñëpp na yahood yi nu ñu bon lañ fuñ mës a gis porox ndollu buñ mën a jaaree pour yàq def nañ ko ndax bu leen fàtte ne ci ñoom ñii laa wàccee woon ah, ci ñoom ñii laa wàccee woon bañ ñëwee porox ndollu kii di la nuyu wa ida jaauka xayawka bi maa lam yu xayika bihi llaah bi maa yu xayika bihi llaah ndax booba bu yonent bi saxaaba yi ñëwee du ko nuyu ci assalaamu alayka rek yaa rasulallah yowar yi ñëw jengal baat ya ne saam aleykum saam aleyka ya rasulallah saam nag ci làngu yahud mooy firi yàlla nga dee kon moom ak salaam boo ko xoolee ñoo bokk nuñ leen bindee waaye laam rek lañ lañ wutee saam boo ca yokkee laam nga nga ne salaam ñoom ñu dagg laam nga rek porox ndolloo jengal seeni baat ne saam aleyka yàlla dogal na Saad ibnu Muaz ku déggoon làng yahuud la ci ñoom la bokk ci la taxaw ne ku ma déggati ngay waxati yonent bi saam aleykum ma rey la ku ma déggati ngay waxati yonent bi ci yéen raay naa ma dagg sa baat ndax baat bu bon la moo tax benn bis rek benn yahuud ñëw fekk yonent bi toog mu koy nuyu ne ko saam aleyka yaa abal qasim Aysatu taxaw dal ci kawam di ko saaga di ko wax wax ju bon yonent bi ne ko wallahi Aïcha ma yaa Aïchatu fa inna laa laa yuhibbu al-fuhsha wa tafaxus inna laaha laa yuhibbu al-fuhsha wa tafaxusa fa qultu ya rasulallah alasta tara ma yaquluun mu ne ko xanaa déggoo liñ lay wax mu ne ko yàlla bëggut Aïcha defal nànk yàlla bëggut wax ju bon bëggul tamit kuy wax wax ju bon mu ne ko kanaa gisuloo liñ lay wax déggoo liñ lay wax mu ne ko ah kay xanaa déggoo ma fay leen alasti tarina aruddu alayhim ma yaquluun aqulu wa alaykum ñoom bañ ma waxee ne ma saama alayka man nee naa leen wa alaykum te man sama ñaan yàlla fa koy nangu te seen ñaan yàlla du ko nangu kon bul jéem a jëflante ñoom di leen saagaaka xaste déedéet léegi nag gis nga kon foofa nu yahuud yi bone porox ndolloo ci baatab alayka ñoom ñu dagg laam nga ne saam alayka jublu ci saaga yonantu bi ba yàlla wàccee aaya ne wa ida jaauka xayyawka bima lam yuxayyika bihi llah suratu mujaadala aaya huit waaye gis nga tamit da nga leen a fekk ñu doon porox ndollu fu ñu mës a gis buntu rek def nañ ca porox ndollu jéem a yàq moo taxoon yàllaa ngi wax ne wa min alladina haadu yuxarrifuuna alkalima an mawaadiihi mu ne bokkoon nañ nekk na ci yahood yi ñu ne ay yahood lañ dañuy jàngal baat yàlla yi walis fañ ko tëralal loolu ma ngi ci suratu nisaa aaya 46 yooya bokk na ci dañoo fekk naan yeddulaay la yàlla ku nay la ay loxoom dañ koo gax yàlla ne xullat aydihim wa lu'inu bima qaalu bal yadaahu mabsuutataani yunfiqu kayfa yashaa'u maayida aaya soixante-quatre su ko defee kon gis nga fii yëpp ñu jàng na porox ndollu ca fa lañ doon porox ndolloo tamit di saaga yonantu bi ci raa'ina yàlla ne jullit ñi bu leen waxati raa'ina waaye waqulu unzurna unzurna maanaam naa intazarna wa amhilna mooy yow yonent mu muñal ñu boo ñu joxatee baat yi ñi koy jàng bu ñu gaaw a bàyyi suñ bopp suñ xel yi mu ñëw sa xel mi may ñu ñi koy réciter di ko jàng ka jàngaat ba mokkal ko nga door ñoo bàyyi yàlla ne comme baatab raay naan ni ngeen ko amee mu bàyyi ko ci riaya yahood yi noonu lañ ko amee mu bàyyi ko ci na nekk baat boo xam ne li muy tekk ci yéen lu rafet la nekk la muy tekk ci ñoom di lu bon yéen ngeen jàppee ko feexlu bi ñoom ñu jàppee ko ismu ba kon nag jël leen baatab unzur naa bi nga xam ne ñoom xamuñu ko te moog raaxi naa mën nañoo wuutuwante mooy mu ñël ñu rek maanaam unzur naa maanaam intafir naa mu ñël ñu su boobaa nag te ko defee ngeen déglu li ma leen di wax xam ne xéeféer yi daal mbugalam laal na dal seen kaw walil kaafirina azabun alib léegi nag ci la jullit ñi bàyyi loola kon nag aayaat yi li ci nekk ci ay jàngale kenn xamul nuñ toll lañ cay njëkk a déggee mooy yow professeur buy jàngale boo yaatuwu dënn rafet xol mënoo jàngal ko xam dara première maanaam jumtukaayu jàngale jàngalekat mooy yërmande ku la ëpp yërmande dàq laa jàngale soo xamee yërmande nag dana tax ngay mën a muñal ñi ngay jàngal su ñu waxee yàq sa yërmande tax nga muñ waxaat ñi yàqaat nga waxaat ñi yàqaat ngay waxaat par nànk fekk dañ koy manee waaye yërmande bu dàqoo ci sa xol bii boo waxalee waa ji baat mu yàq ko nga waxaat mu yàq ko nga tas ko mbaa nga dóor ko man ngaa dem ba gaañ ko boo xamul sens man nga koo dóor dóor yoo xam ne bakkanam mën na caa des koy jàngalati moo tax premier jàngalekat mooy yàlla waaye ku bëri ay tur la baata turu muntaqim ji firi aji mbugale ca turam yi la waaye ba mu duggee classe ne may jàngale jëlut ko lu mu jël baatu arrahmaanu allama alquran wallahi man yàlla arrahmaan mooy xéewalaa bi ki nga xam ne xéewalam daj na ñépp daj na ku jub ak ku jubadi daj na ki xam ak ki xamut daj na ki topp ak ki moy daj na ki ko gëm ak ki ko gëmul yépp kooku mooy pare pour jàngal leen alxuraan ku mel noonaa mën a jàngale waaye sa xol bi fekk mi ngi xat ñàkk yërmande sooy jàngal doomi jàmbur ji la baayam di joxe suukar baayam di la euh, fayam mat baayam dina la xottil nga koy jàngal njàngal mu baax ki baayam mënut loola soo koy jàngal xawoon na sax sa baat bi xaw koo négligé nu nekkuloo arrahman amewuloo melaw melow da ngay xamale ki xam ak ki xamut kii fay ak ki fayut ki xam xel ak ki ñàkk xel ki mën ak ki mënut ñépp nga door a xam bu turo yàlla nag door a mën a jàngale kon jàngalekat foog mu yaatu dënn moom la saxaba yi wax yonantu bi ne ko unzur naa waaye waaye yonantu bi mu ñël ñu suñ xel yi neexut mu ñël ñu ngay wax ak a waxaat ngay wax ak a waxaat bañ mokkal ko nga door ñoo baxee suñ bopp kon loolu mooy première leçon bi nga xam ne tabaarakallaahu moom aaya ji tegtale na ko ñaareel bi dafay tegtale tamit ne su ngeen bañee yàqule mbooleem baat yu tegtale ak jamtalu mën a firi lii mën a firi la le ba leen ko fa tey jël baat boo xam ne jamtaluwut ci dara la muy tekki dong lay tekki waaye am na ci baat yoo xam ne mën naa tekki lii mën a tekki lii su boobaa nag boo ko waxee jublu ci bii kële jël ko jublu ci bëre du ngeen déggoo ba péncam yàlla moo dal saxaaba ya yahuud yi moo tax na yàlla ne baat yi mën a jantalu bu ngeen bëggee xam jàmm baleen ko bu leen ko utiliser su ngeen ko utiliser rek nit mën na caa jaaree ba yàq moom la ñu tuddee ci fuqahaawu maalikiyiina yi maanaam euh, saddu zari'a mooy fépp foo xam ne turu la porte la nit mën na faa jaaree yàq nga fexe ba mëdd ko loolu sax dafa bokk ci ponki ngiru imaamu Maalik mooy loo xam ne def ko dara liwu ca waaye nag def ko mën na laa jaaree ba yóbbu ci def lu dara ne maali ne kon baxal li dara newut bala ngaa dugg ci def lu dara ne fekk na loolu la cay jublu mu muy saddu sariya moom la yàlla wax ci alquran wala tasubu alladina yaduuna min dunillahi fa yasubu llaha adwan bi gayri ilmin fekk xërëm gu tekkiwul dara nga di ko ŋàññi ngir li muy réeral ñu bari dara nekkut ca waaye ke fonk xërëmam di ko jaamu boo ñëwee nga saaga xërëm nga ŋàññi ko ci kanamam moom mu ŋàññi sa yàlla ji nga fonk loolu kon baaxul kon su boobaa nag xas xërëm wax ko wax ju bon dara newu ca waaye nag def ko mën na laa tax nga ba yóbbu la ci ñi déggal lu dara ne kon far ko bàyyi rek bu leen wax dara waaye gars yi ku fi nekk naan da ngay xas seen diine ya bëgg a xas seen jàngu ya bëgg a xas seen lekki mbaam xuux yooya ñu fonk bëgg a xas seen xërëm ya ñi lay dégg te ñoom ñoo ngi koy baxi xel dafa leen a yóbboo ñu saaga sa yàlla ji te su boobaa yow moom yaa saagalu sa yàlla ji te loolu baaxut moo tax yàlla wax yonentu bi ne ko wala tasubu lazina yad'una min dunillahi fa yasubu laa adwan laa adwan bi xayri ilmin anam aya 108 kon loo cay déggee ab jullit war nay moytandiku di saaga bàyyi jàmbur boo fonkee sa bàyyi bul saaga bàyyi jàmbur de ku fonk sa bàyyi da ngay saaga bàyyi jàmbur boo saagaa bàyyi jàmbur jàmbur jëf ci sa baay yow yaa saaga bu nit doxadee bay xas bàyyi jàmbur ngir ak mbon waay waay kooka ala kulli xaal bu ko waa jooja mu saaga baayam xas ko fayoo moom mooma moo saagalu baayam te lii ma wax la kat yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax mu ne bokk na ci bàkkaar yi gën a màgg te gën a rëy mooy nit kuy saaga waajuram saxaaba yi ne ko naka lay nit di saaga waajuram mu ne akkay ah mooy mu saaga rek waajuru jàmbur su ko defee kooka tamit fayu ci waajuram su boobaa moom mooma moo saagalu waajuram te amul kenn koo xam ne waajuram tuuti na ci moom yow nag boo doxadee ba sa baay tuuti ci yow da nga fekk kuñ ko séq ak moom da nga fekk baayam tuuti na ci rëy na ci moom moo tax yonent bi ne min al kabairi shatmu rajuli walidayhi qaalu ya rasulallahi wa hal yastumu rajulu walidayhi qaala qaala naam yasubbu aba rajuli fa yasubbu abaahu wa ummahu fa yasubbu ummahu hadis la bopp da mën nga seeti ko ci buxaari yu ak muslim hadisu muttafaqun alayhi la muslim andi na ko buxaari yu andi na ko kon nag léeg-léeg ngaa war a baxi lu dara nexut ngir bañ a dugg ci lu dara ne ba bëggee am jàmm loolu la yàlla jëflante woon ak asxaabu la mooy mbokk ya dëkkoon ca gott ba ca xuur wa yàlla yónni woon ci ñoom yonantu bu ñuy tuddee daawuda mu ne leen tere naa leen ngeen ni rëbbi ngeen ni rëbbu samedi jën yi waaye nag bu samedi jotee rek jën ya bëri bis bu dul samedi duñ gis jën waaye fekk rëbb la leen waaye terewuñ leen fexeel jën ñi mujj naan gas ay kaaw bu samedi gasee rek jën ya dugg ca buñ bàyyee ba dimanche ñu doon leen rëbb kon lañ doon def dara newu ca waaye moo leen yóbboo ci la dara ne yàlla ne wasaluhum anil qaryati allati kaanat xaadirata albahri id yaaduuna fi sabti id taatihim xitaanuhum yowma sabtihim shuraan waa yow ma laa yasbituuna laa te taatihim kazalika nabluhum bima kaanu yafsiquuna laaraaf aaya 163 nga koy fekk kon lañ doon def dara newu ca waaye moo leen yóbboo ci la dara ne ñi mujj torox lu yàlla mu ak ñoom soppi ni ay golo ñii mu soppi ni ay mbaam xuux ñii dinkaas diiram ñetti fan dee kon loolu lépp def lu dara newutoon ba mu yóbbu la ci lu dara ne nga mujj torox te xam nga lii simple moo tax yonent bi ne daal innal xalaala bayinun wa innal xaraama bayinun wa baynahuma mustabihatun laa yaclamuhunna kathirun min annaasi fa man ittaqa subuhaati faqad istabra'a li diinihi wa irdihi wa man waqaa fi subuhaati waqaa fi lxaraami karraaci yarcaa xawla alxima yusaku an yaqaca fiihi alaa inna himallahi maharimuhu alaa wa inna fil jasadi mudga ida salahat salaha aljasadu kulluhu wa ida fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wa hiya alqalbu hadis la bopp muttafaqun alayhi la muslim ak buxaari yu yëpp ñoo bokk indi hadis bi kon nag nañuy bàyyi léegi-léegi lu dara ne ngir bañ a ci li dara newut ngir bañ a tàbbi lu dara ne yooyu yëpp subuhaat yi ca lañ bokk teet ko bu baax a baax xam nga ne boo gisee subahaat yi suñu mag ñu teet ñi dañ daan bañ di takk ceinture ceinture der cuir ñu ne waaw der bam nekk lañ xamut cosaan la te buy ci masa bu Maalik bu bàyyi ko ci der boo xam ne dafa xaraamal lekk deram mbaam xuux deram mbaam kër dera fas luñ ko sëbëj sëbëj lu teree mu nekk di lu xaraam su fekkee dafa bàyyi ko ci darab bu dagana lekk waaye dafa médd kenn rendiwut ko muy darab xar darab bëy luñ ko sëbëj sëbëj ci bu Maalik dafay xaraam loolu mooy li ëpp ci mazhab bi loolu lañ àtte bokkutoo na nag la yonent bi wax ci xaddis ba nga xam ne euh, euh, laab ak luxa la ca nekk la ca namu ne bépp der buñ ko sëbëjee laab na laab ak luxa la mais du laab moo taxoon nag ñi teet ñi nekk ñu sàmm du ñu nangoo takk montoorab der ndax xamuñ der ba ni mu deroo ngir bañ a dugg ci lu lëdd waaye tamit du ñu nangoo takk ceinture boo xam ne der la ndax dañuy mujj xamuñ bii beelaam wala bële la yooyu yëpp ay subuhaat la te yooye su ma ko doon lim lu bëree bëree bëri bëri la kon bala ngaa mën a sàmm da baxi lu dara newut ngir bañ a tàbbi ci lu dara ne soo ko defee rek nga am jàmm kon nag yàlla wan saxaaba yonumtu bi ne bàyyi leen baat yu jamtalu yi doonte le baat yu jamtalu yooya dara newu ca damay bañ ngeen tàbbi ci lu dara ne kon nag laa taqulu raayna waaye waqulu unzurna wasmau walil kafirina azabun alimun kooku mooy première yaa ay bi yàlla ñëw tabaarakallahu wax ko ñun ci ya ayu yi nga xam ne juróom ñeent fukk la juróom ñett fukk la kon ak juróom ñeent bii moo ci njëkk su ko defee tamit ñi bàyyi ko xel kon ci loolu waaye dañoon ca déggee tamit saa yu ñu xottee xormaay yàlla xotti xormaay yonantu bi xotti xormaay diine yow jullit bi nar a jaral jaay sa bakkan waaye bul nekk fee naan ñi xotti xormaa yàlla ak xotti xormaa yonent bi ak diine gi dañ torox de te yow pare woo ngir toroxal leen ku leen toroxal waaye tey li ëpp ci nit ñi koo fi saaga sëriñam balaa xam nit nga ak dof nga mu ray la koo fi saaga baayam mbaa nga saaga yaayam balaa xam nit nga ak dof nga mu ray la waaye ku fi saaga woon yàlla mbaa mu saaga yonent bi ala ku haal da ngay dégg ñu ah baleen ko dana torox moo tax Cheikh Omar waxoon wax juróoy da li kulli qatilin naihatun yanaxnuhu wa laysa ala diinil muhaymini naihu ku dee xam ku la jooyal sa dëj ba mooy lislaam lislaam ci tumuraan ka xamul koo jooyal ab dëjam moo tax gis nga ko benn waaye ma naa wax yàlla wax ju bon Aboubacar kurfañ ko kurfañ wu métti pare ngir xeex ak moom sayyidatuna Aïcha mile ba mu déggee ñuy wax yonantu bi wax ju bon dafa taxaw jëflante koog ñoom ba yonent bi ne ko fa inna allaha la yuhibbul fuhsha wa tafaxusha Saad ibnu Muaaz ba mu déggee mbokkam yow tamit wax wax ju bon ji di ko jëmee ci yonent ba la taxaw bokki gaas yi ne ku ma jéggati nga bi saam mbaa nga ne ko raa ay naa ma dagg sa dox ab julit piir balaa njulita ma mën a dëggu ku dal ci kaw yàlla dalal ci kawam ku dal diine dalal ci kawam ku dal ci kaw yonent bi dalal ci kawam bu ci sa bakkan ñàkkee da ngaa ah, su fekkee da ngaa rey waaja nag yow nga jëlee ci yool bu rëy rëy rëy moo tax am na ci yoo xam ne ku ko mas a wax rek mbaa nga mas koo def yonent bi dafay neenal sa deret ne fu ngeen ko gis rey leen ko moo tax gis nga ko Muaaz ba gaa yi waxee dafa ne ku ma ko déggati la in sami'tuha min rajulin minkum yaquluha linnabi la adribanna unuqahu mu jeex loola mooy lislaam te loolu la yàlla taggee saxaaba yi lislaam ku ca adhéré wu da ngaa war a fiir ci diina gi fiir ci yonantu bi fiir ci yàlla ku bëgg a dal ci kawam nga xeex ak moom moo tax ne muhammadu rasulullahi walladina maahu lum ca teg ashiddaau ala alkuffaari da ngaa war a tag ci yi waaye nag ruhamaau baynahum nga nekk ñu am ak yërmande sa moroomi jullit ñi waaye safaan ba moo fi ne bëgg yéeféer bañ sa moroomam jullit moo fi ne waaye ku gëm yàlla gëm yonent bi bëgg ko da ngaa war a bañ ab waaye nag bëgg sa moroomam jullit bëgg goo xam ne bu jeex tàkk la kon aay ji dañ ci jàngatalee baxi ba baadu jamtalu yi aay ji dañ ci déggee yow professeur buy jàngale boo xamewut melaw yàlla ci yërmande koo jàngal du xam dara foog nga nangoo muñal man mën a muñ ci lu bari waaye tamit dañ ci déggee de ab jullit dafa war a fiir ci diineem lépp lu ko nar a ayibal na takkaayu ngir war a xeex ak kooka ca loola soo ko deful rek tabaarakallaahu sa mbir dana yàqu waaye tamit lañ cay mujj a déggee nag boo nekkee ku ñuy roy ci wax del wax lu leer lépp luy indi jamtalu sori ko rawatina jamono ji di jamono réseaux sociaux yi nekk ci réseaux sociaux yi di sos rek di monter di dagg di kore di di ruuxale kilifa yi rek yooyu yëpp dara baaxu ca yooya daw ko ak jël ay kilifa yi diine ba bëgg leen def ay champion di leen di tëggal ay ay di leen tëggal ay làmbu kii xa daan kii kii daan kële waaye waaye loolu loolu baaxut bañ ko bàyyi kilifa yi diine yi seen mbaax gi duñu jariñ dara ndeem baaxuñu yàlla nee na bu ngeen ñëwee yowmal xiyaam dama leen du laaj ñi ngeen baaxle ñi ngeen baaxle sama yoon newu ci waaye xam nga li ma leen di laaj mooy li ngeen baaxle ndax ñoo ñooñu tilka ummatum xad xalal lahaa maa kasabat mais wala ku maa kasabtum mais nekk fii tiitaroo sa baax ak kilifa nekk fii tiitaroo sa mbaax ak baay nekk fii tiitaroo sa mbaax ak maam nekk fii tiitaroo sa mbaax ak sëriñ te yow ci sa bopp yaa gën a xées kilo yàlla bind du la jëriñ tus mu jaral la sax ngay fasa fayaka neexaleeka tiitaru maa joxe lii pour wane wane fësal sa mbaax ak sëriñ te yow nekk ku xées dara la lu jariñ kon boo nekkee ku ñuy roy ci wax del wax lu leer boo nekkee ku ñuy roy ci jëf del jëf-jëf ju jub yoo xam ne bakkan seytaane àdduna amul ci benn cër loolu moo dal yonent bi sallallahu alayhi benn sallam benn soxnaam safiyatu dafa ñëw di ko seet si safiyatu bintu Huyay ibnu Axtab dafa ñëw di ko seet si sallallahu alayhi wa sallama ba mu ñëwee fekk ko yonent doon leex si kaaf ca jàkka ja ba mu ñëwee yonent bi di ko gunge ñi dox tuuti rek ci lëndëm ji mu gis ñaari nit ci wàllan saar ñooña ba ñu séenee ba xam ne kii yonantu bi la rek ñi gaaw rek bëgg a daw ci lëndëm gi yonantu bi ne xalaa rislikuma waay waay waaye def leen nànk def leen nànk ba gaa ya taxaw mu ne leen kaay leen mu ñëw jege si mu ne leen innaha safiyatu bintu xuyay innaha safiyatu bintu xuyay kii ngeen gis kat sama soxna la muy safiyatu bintu xuyay nu ñooñe ne ko subhanallah ya rasulallah waay waay yow ñu ngi muslu yàlla dañuy xalaat lu bon ak lu ñaaw ci yow mu ne déedéet inna shaytaana yajri min ibni aadama majra dami wa inni xasiitu an yuqdifa fi qulubikuma charran aw qaala shay'an hadis la bopp muttafaqun alayhi la muslim ak buxaari yëpp ñoo ko indi yonent bi ne leen seytaane day daw ci jëmmi doomu aadama ni deretam di dawee ci jëmmam ma ragal mu xam lum sànni ci seen xol yi ne gis nañ suñ kilifa gi ñu yaakaaroon foogoo ne kilifaak guddi la ak kilifaak bëccëg la ndeke woo kilifaak bëccëg rekk la waaye daal ndeketoo duwut kilifaak guddi ñoo ko gis mi ngi taxaw ak jigéen ci lëndëm gi ca peggu jàkka ja saytaane sotti ko ci seen xol yi ngeen foog lu fooguwut yaakaar lu yaakaaruwut jaaree ca yàqule man ngeen caa yàqal ñeneen moo tax ma woo leen ba ngeen ñëw ne leen sama soxna laa taxaw de ndax dafa bari ci kilifa yoo xam ne kilifa ak bëccëg rek bëccëg ñoo ci man ñëpp te waaye gudd ñëpp a leen ci man bu gudd jotee ñu taal seen oto yi raasaatu ñiy topp boîte yi ñiy topp xale yi jigéen yi ñiy topp maanaam auberge yi ñiy topp hôtel yi ka kaalawoon ca bëccëg nga koy ràpp nga jox àddiya bu guddi jotee boo ko gisee bëggoon a jël xeer sànni ko ko yonentu bi nag jàngaleel loola wane ne buñ lay déglu deel wax lu leer buñ lay roy dee jëf-jëf du jub ba kenn du mën a jël tuuma di ko sànni ci sa der bi yonentu bi xoolu leen mbir ma jeex moo tax euh, Omar ibnu Xattaab ku dégg yàlla la dafa daan wax ne dañ fee nekkoon ci ñun ku def lu defuwut yàlla wàccee wax yu ci yontu bi mu weer la ku gàkk yàlla wàccee wax yu mu gàgganti la wax yu gi jeex na ñu fi des ku ma gis ci sa saahir bii mu nekk lu jub lu tegu ci yoon ma hóolu la délégué la sa mbaati sa mbiram baatin sama yoon néewu ca yàlla lu ma ko ku ma gis sa baatin bile sa saahir bile jubadi la ma cay gis ñu mën caa teg loxo ngir teguwul ci yoon ma jëflante kook yow sa baatin ba nag doonte lu baax la sama yoon néew ci ma ba kook yàlla moo tax mu ne inna naasan kaanu yuxasuuna bil waxyi fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa inna al waxya qad inqataa wa innama naxudu al aana bima zahara lana min amalikum su ko defee nag fa man azhara lana xayran amannaahu wa qarabnaahu wa laysa lana min sariratihi shay'un allahu yuhaasibuhu fi sariratihi wa man azhara lana su'an lam na'manhu wa lam nusaddiqhu wa in qaala inna fi sariratihi xasana suñ yoon nekku ci Omar yo daan wax jooju seetil wax jooju ci Buxaari yu boo demee da nga ko ca fekk kon nit ñi ci seen dong lañ leen mën a xàttee mbiram baatin suñu yoon néewu ci xamuñu ko baaxee nañ ko yàlla waaye daal boo nekkee di jëf jëf ju jub di wax wax ju jub di jëflante jëflante bu maandu mënuñ lu dul wax ne yow ku baax nga ku maandu nga donte le sa xol ba lu bon a ca ne suñu yoon newu ca yàlla togg ñu ñu xam ko waaye bu ñu gisee ngay wax wax ju bon di jëf jëf ju bon di jëflante jëflante bu jubadi mënuñoo wax lu dul yow ko bon nga ku jubadi nga su ko defee nag donte sa xol ba mbaax ca ne suñ yoon néew ca yàlla toggut ko lii la daan Omar ibnu Xataab daan xàttewoo ci xilaafaam gi moo tax mbooleem jaraafam yi ku ci musa euh, wane gannaaw teguwoo ci yoon rek mu rëq sa ndigg ku maandu xoon laaj ko yónnee ñaari doomam ya Abdullahi wa Ubaydillahi ñi fekk Omar ibnul Aas ca Égypte ñi yëkkati alal yu bari jox ko ko ni leen seen papa ku tàng la bu ngeen demee jaay leen ko asakaay jullit ñi la su ngeen ko jaayee bu ko paree jël bénéfice ba la ca des ngeen de ngeen jël asaka ja cosaanal alal ga jox ko ko ba ñëwee foo nañoo ca ne wax ko ko mu ne ndax lii mu defa leen soo ko defal ñëpp ñu new déedéet mu ne ah li ngeen nekk doomi buur bee tax mu bëgg a neexal seen baay déedéet dem leen la ngeen jaay ak bi yëpp ma dugal ko ci sumaal bi ma dugal ko ci maanaam banque jullit ñi mujj gi nag kibaaru saxaaba ya wax ak moom ne kon da ngay def ak ñoom xiraat mooy ne comme sonn nañ ca toppatoo ko te fekk doom gi ne ko waaw bu fekkoon dafa sànku nag li ñu jox mu ne yéen a koy warlu ñu ne ko kon nag loolu la kibaaru saxaaba ya ne ko kon nag defal ak ñoom xiraat da ngay séddoo ñoom bénéfice bi jëlal yaxu alal ji nga teg ko bénéfice bi nga séddoo ko ci digg bi lii nga dolli ko ci bayti maal la ca def nga jox leen ko kooku mooy xamar ku maandu population yëpp population bi yëpp mandoo ca mandoom ga waxuma la sax population mais animaux yi sax dañuy mandu Omar ibn Abdul Aziz weer yi fi def ak néew dafa mandu woon ba gaynde yeeg muus yeeg xaj yeeg golo yëpp mandu diirëb lim fi ne xaj dàqihut golo golo dàqihut muus muus dàqihut janax waaye feeg yaa ngi gis muus yaa ngay dàqi janax ya janax ya di dàqee maanaam euh, gunóor ya euh, bukki yay dàqee lëg ya bu ko defee tamit tilli yay dàqee bodom ya wallahi xamal ne ñàkk a maandu ma nga ca suuf soosa waaye bu maandu amee daal ñëppay maandu ba ani mooy mujj maandoo ca maandooy nit ña loolu moo daloon Omar ibn Abdul Aziz mi nga xam ne mooy sëtëb Sayduna Omar tabaarakallaahu maandu bañ ko boole ko ci di ko tuddee xaamisul xulafaa ci juróomeel ñeenti xalifaa yonantu bi kon nag foote bu njëkk baag ngóog yéen jullit ñi bàyyi leen ci xel yéen jullit ñi bu ngeen bañee yàqule bépp baat buy jamtalu ci ay làng mbaa muy jamtalu ci aw làng boo ko waxee mën naa firi lii di lu baax bu ko kii waxee mën naa firi lii di lu bon soo bëggee am jàmm sànnil baat yooya tëjal yeneen baat yoo xam ne amul benn ak jamtalu laa taqulu raaina wa qulu unzurnaa yow jullit bi boo fonkee sa baay bul saaga bàyyi jàmbur yow jullit bi boo fonkee sa borom bul saboote xërëm ak jàmbur wala ngay saboote kënisaab jàmbur su ko defee mu jaaree fa saboote li nga am kon dee leen bayi li dara nehut ngir bañ a dugg ci lu dara ne def maanaam saddu zaria euh, waaye tamit jàngale jàngalekat bi soo bëggee am résultat ci ni ngay jàngal na nga jël sa xol bi sotti ci yërmande amee melow yàlla nga àbb ko ko ci arrahmanu allama alquran su boobaa nag mooy tax nga am résultat mën a am ay cadre yoo xam ne ñu ngi génne ci sa loxo bi le moo tax loolu la yàlla wax yonantu bi ne ko yow yaay jàngale saxaaba yi ñu ngi taxaw na la unzur naa mu ñëw ñu tuuti di ñu saxaaka saxaat ñuy yàq nga ñu defaral bañ mokkal nga door ñaa bàyyi ak suñ bopp waaye boo nekkee jàngalekat yàkkamti mbaa nga nekk koo xam ne dangaa jiital am-am ci sa xol bi le bu la kii neexalee baayam nga nga beral ko kuur ala kulli haal su boobaa dafa lay yàqal taxal lii sañ ko ko wax xam-xamam dafa bëri saxaaba yi kar ko ndeko ndax yonent bi dafa lay beral ay kuur yum ñu joxut mu ne ah, déedéet lam leen di jàngal la may jàngal rek ak dégg goo xam ne yàllaa koy jagleel ku ko neex ci ay jaamam xam naa loolu de waaye pour cours yu may jagleel xam maa ngi yéen ñëppay bokk jàngandoor kon nag ab jàngalekat dafay ame melow yàlla ci am yërmande mooy tax nga am résultat wu bu baax a baax a baax su ko defee tamit nag euh, nañu bàyyi ba baat yu jamtalu yi nañuy am mën a muñandiku ñi nga xam ne ñu ngi leen di jàngal waaye tamit euh, lépp koo xamee ne ni lam xam doon doonte lu fonkuwut la boo ko ko fonkalut mu saaga la ah, boo boo boo saaga lam yor mu saaga li nga yor te yow li nga yor nekk lu fonku ah su boobaa boo bëggee xam jàmm rek baxee ko lam yor su ko defee kon nag yooyu yëpp dañ ko bàyyi xel baat yu jamta luñ mën naa yàqal ni benn borom xam-xam benn waaye dafa ne ko damaa xam doom noo ko bëgg a tuddee mu ne israaq di firi ak jolleeg leer mu ne ko lu baax la waaye damay bañ ñu ñu ko mënta tudd dem sotti xaaf ga kaaf tuddee ko israaq ndax sa israaq ak israaq sorewuñu ñoo bokk fu ñuy génnee kon daal su ma sañoon ma seet beneen baat bu xamut loola su ko defee waa ji ne ko wax nga dëgg d'accord naa waaye gis nga tamit benn waa joo xam ne dafa fekk waa ju yore benn xërimam istateem ñoom dañ koo jël ci entreprise ba mu fay liggéey rek ña des ñëpp ca entreprise ba ki ko moom ak ña fay liggéeyee yëpp istate bi lañ gëm moom mu ñëw fekk waa ji jël istati ba di ko ñaan di toroxlu mu jàllale di ko daane istati bi toj ko ñu boole ko chef entreprise bi gaa yëpp dajee mer na dañ koy rey dañ koy rey mu digg ñu tànn loo ko ñaar ne ñaar daal moo fi sës bu bu la bu boo ci tànn ñu bàyyi la bi ci njëkk mooy ne istati bi nga dem yettaat bu mel ni moom taxawal ko na meloon nga taxaw ci kanamam tamit jéggalu ko jéggalu ko ci li nga ko def boobu mooy benn bi boo ko defut ñi la beneen bi nga taxaw waat loolu gannaaw boo ko defee ñun ñëpp nga bokk jéggaluñu mu dem xettaat istati bi taxaw jéggalu ko jéggalu gaa waaye waaye waay bàyyi woon gaa yooya ci lañ jëm moo gën a noxeef doxadal na boppam toroxal na boppam te loolu lépp lu ko ko yóbbu tooñ moo te ki gën a ñàkk garant ci kaw suuf gën a doxadi mooy ab tooñkat ndax yàlla wax na ko wal xurumaatu qisaasun mbooleem xorma yi tooñ mii waral fayu da koy xotti loo xam-xam xorma boo nekkee tooñkat rek sa sutura xawee ko man ngaa xam baay ju baax fonk ko ñëpp fonk ci xam-xamam sa mën a tooñ yóbbu la nga saaga baayu jàmbur mu saaga sa baay loo ca man man ngaa xam sëriñ bu baax yàlla nattu la beneen waaye xam ab sëriñ nga naan ko sa sëriñ bi lii saaga sëriñam ba mu saaga sa sëriñ bi nga fonk loo ca man man nga fee nekk tamit tabaarakallaahu tooñkat du am garante say jël xale bu ndaw man nga koo jur nga saaga ko mu saaga la nga toroxal ko mu toroxal la wax lu wax ju bon yoo xam ne jaral na la dugg bàmmeel kon ku bëgg am xorma bëgg am sécurité bëgg ñu fonk la bàyyil tooñ tooñ ku ko def sa sutura xawee ko sa lépp xawee ko te rawatina dama tollu jamono joo xam ne yàllaa ñu natt ñun ñëpp dañoo xoddoo butéel ku xoddoo butéel dangaa war a moytandiku sànnihantee xeer waaye boo ko doy butal di sànnihantee xeer bu xeer bi dalee ci sa kaw sa lépp ko kon nag kon ñun la yàlla nattu ñu fa doo butéel daal nañ bàyyi sànnihantee xeer tey suturalante bu yomal xiyaama yàlla suturaal ñëpp koo gis nga jàppee ne moo la gën su ko defee nga xool ko bët bu màgg xormaal ko soo lëggee nga am jàmm yàlla na yàlla taw ñu tawfiq ak taysiir lii mooy première yaa ayuha bi ñëw ci alquran bu ñaareel bi tamit mi ngi ci suratu baqara moom la mooy nekk suñ darsoog ëllëg ci yaay wala si na amum stainu bi sabri wasalaati inna allaha maa sabirin mooy nekk suñ darsoog ëllëg ma toppala yaa ayyuhaa yi benn par benn ba yëpp jeex nekk juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent amaguñ nañ benn ji juróom-ñett fukk ak juróom-ñett mi ngi suñ kanam su ko defee nag topp ma suba ci waxtu wi incha allahu ma sof ak yow li ma sosoon ak yow in uridu ila al islaha ma stataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu li unik wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu